17h. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi ñu dooree ak euh, suuf suñuy saax-saaxee rawatina li féeteeg euh, peggu géej gi ni ci nit ñi war a amee euh, mën ko jot wala ñu def ci seeni soxla dinañu ko respecter am na benn plan bu ñu di préparer fi mu ne nii ministre conseiller en communication di Seydou Gueye bu présidence kon moom moo ko daal di wax dinañ ci dikk ci nu mu gën a yaatoo ci jamono yi lu toll ci euh, ñetti nit daal dinañu dolleeku ci ñi faatu ci jàngoroy coronavirus ñu gis ne nag euh, tey ji ci bis bi lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak euh, juróom-ñaari nit jàngoro ji dal na leen ñaar fukk ak benn yi kenn xamul fu ñu ko jëlee dinañ ci déglu docteur Mamadou Ndiaye ci wàllu feebar boobu boobule itam ginnaaw nit ñi dañu xaw a mel ni dañu yokki bàyyi seen ndox ci fàggu bi collectif de mouvement afulaar nekk ca Tambacounda jóg Euh, soobu ci xeex bi daal dinay def nag benn caravane ngir ñaax askan wi ñu delloosiwaat euh, seen xel dinañ wax itam ci génn àdduna Abdoulaye euh, Sey Moro di woon ancien président fédération sénégalaise bu basket moom nag faatu na ci juróom-ñett fukki ñeent fukkeelu atam dinañ ci déglu seeday Seydina Oumar Ndiaye di secrétaire général comité olympique sénégalais ci kanam tuuti ñu di ko génn faram fàcce bi Sud FM Ndeye Khady Diop salaamaaleykum euh, mbokk déglukat yi coowal euh, saax-saaxe suuf si rawatina li féeteek euh, géej gi di littoral bi ni ci nit ñi amee dogal askan wi yëpp ba ko soxla géej nga mën ko daal di jot loolu dinañu ko bàyyi xel am na benn plan d'aménagement boo xamante ne nguur gi mu ngi koy liggéey ki ko wax di ministre conseiller en communication bu présidence di Seydou Guèye nee na nag li ñu séntu ci plan boobule mooy fexe ba lépp lu ñu fay tabax Euh, mu nekk lu jaar ci yoon euh, kàddu yi daf ko daan yëkkati euh, ci seen émission objection ak Baye Oumar Gueye tey jii ci wàllu coronavirus lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari nit dolleeku nañu ci ñi ko am ñaar fukk ak benn yi kenn xamul fu ñu ko jëlee ñu gis ne nag ci bésub dimanche ji itam gis nañ ne ñetti nit dolleeku nañu ci ñi faatu dañ ci déglu ci ay leexal docteur Mamadou Ndiaye di directeur de la prévention ci ay tënk. ci junni. ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent test yi nga xam ne jot nañ ko def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam téeméer ak ñeent cas contact ñi nga xam ne ñoom dañoo jot a ak ñu yoroon doomu jàngoro bi ñaari cas importé ci région de Saint-Louis ñaar fukk ak benn cas communautaire ñi nga xam ne nii lañ tëddee Mbao am na ñett Rufisque am na ñett Géejawaay ñaar la am Kaolack am na ñaar Thiès ñaar Bopp benn Patte d'Oie benn Cité Cyprès am na benn Yoff am na benn Bignona am na benn Diourbel am na benn Kaffrine am na benn Mbour am na benn Touba am na benn fanweer ak juróom benn si ñu ñu woon wér nañu kon dinañu mun a génn ak jàmm ñaar fukk ak juróom-ñaar cas yu sonn ñu ngi des ci hôpital yi ba léegi ñetti malade jot nañu ñàkk seen bakkan ci samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar. ci jàngoroy coronavirus ba tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo jóge woon ci Singeex Jola ci fitna fitnay waa MFDC ca Casamance ñoom. commune bu Kawuur dafa leen euh, dalaloon ca salle de délibération bu mairie ba dafa leen fa daal di jëlal nag dugal leen ci ay abri provisoire maanaam ay béréb bu ndéggandiku waaye nag nee nañu ginnaaw nawet bi dafa daal di teru euh, te itam jàngoro coronavirus bi bari lool wasaaxo deuxième adjoint au maire bi euh, di ñaan kon askan wi jàppale leen waaye itam nguur gi dugal ci loxoom ngir ñu mën a gunge askan woowu li nga xamante ne kat ña jugee kon ca seen gox ginnaaw fitna yi ñu leen teg Yuba sonk kon nee na faaw ñu amal waxtaan bu yaatu euh, te dëggu diggante nguur gi ak waa MFDC ngir jeexal euh, coow li ak conflit bi am ca euh, fële di sigi dañ koy déglu moom Yuba Sonko ci micro Moussa Dramé. waaw effectivement ba léegi waa Sengel Thiola ñi ngi fi depuis ñu jógee foofu ñu ñëw Kawar fii ci laa leen jox salle délibération ba léegi foofu lañ nekk comme ñoom dañuy décider toog fii. xam nga salle délibération benn salle la ñoom ñëpp mënuñu dëkk foofu euh, si la maire bi woo ma Ndiaye jox ma ndigal mu ne ma léegi dangay seet benn espace boo xamante ni euh, foofu la ñu mën a nekk en attendant euh, foofu la ñu nekk commencé ni defar ni ñu defar leen foofu abri provisoire ñu nekk foofu en attendant xëy na ci kanam yàlla dina mun a def xewal si lii lañ nekk vraiment jeunesse bi génn nañ paa yi nañ maa ngi ñaan nguur gi nañ leen jàppale vivre. ndax sonn nañ ci dund bi à part commune bu Kaolack bi à la commune et les bonnes volontés euh, ñi nekk ci commune bi ñoo leen nekk di leen jàppale maa ngi ñaan état nguur bi na leen jàppale dañu leen jàppale vivre ndax koo xamante ne da nga jógee fu sori nga ñëw ak sa jaboot bi da nga war a dund dund boobu état moo la mën a jàppale moo tax maa ngi ñaan état nañ leen jàppale fu ñu mën a dundu di ñaan tamit état bi MFDC tamit nañ toog waxtaan. parce que vraiment ñii daal ñi ngi fii mais seen xel bi yëpp ñu ngi seen dëkk soo leen nekk ci ñoom sax da xam ne ñi vraiment ils se sont frustrés te loolu euh, vraiment may ñaan état bi nañ lañ jàppale mu na leen accompagner ak ONG yi. maa ngi lancé un appel aussi à nos frères MFDC vraiment comme ñii dañu dañu bëgg a ñibbi vraiment nañu lañ jàppale nañ xool nan lañ mën a def pour ñu mun a dem foofu en attendant nañu xool ci kanam yàlla lu muy def. gannaaw askan wi dañu bàyyi seen loxo ci fàggandiku bi collectif de mouvements a foulard jug euh, jug ci xeex bi ak Covid 19 mu di ay ndaw yu amal caravane de sensibilisation euh, ca yenn gox yi nekk ci Tambacounda waaye itam maye ay jumtuwaay ngir euh, jàngoro ji daal di fiy génn dañ ci ànd ak Boubacar Tamba. fii ci diwaanu Tambacounda de seetlu nañ ni ñu bari toppatuñu tegtal ya waa kër docteur yi joxe ngir ñu mën a mucc ci jàngoroy coronavirus looloo waral scout yeeg éclaireurs yi jóg taxaw tem ñu ànd ceeg euh, inspection régionale de la jeunesse ci lëkkaloom ak benn ONG italienne ma ñuy duppee VIS amal fii caravane yee teeg joxe ay jumtuwaay ci juróom-benn quartier nekk fii ci biir Tambacounda El Hadj Omar Cissé Diaité mooy inspecteur régional de la jeunesse bu Tambacounda. ay masque ay gel ay saabu ay kit sanitaire yooyu c'est pour ñu jàppale quartier cible yu nekk ci commune de Tambacounda eh, juróom benn quartier lañ nga xamante ni ils sont dans le besoin matériel ministère de la jeunesse moo ñu ko joxoon c'est un moment aussi de remercier eh, madame le ministre de la jeunesse ONG bis tamit eh, jàppale nañu ci matériel yooyu tamit moo ñu jàppale côté finance mais également côté encadrement tamit ñoo participer na ci. ndax di ngeen continuer ci lii. waaw bu soobee yàlla dinañ ci continuer parce que kii chaque département. directeur de SEDEPS dina am ay kit sanitaire ñoom scout yeeg éclaireur yi fas yéene nañoo wéyal seen jàmmarloog mbaas mi fu ne ci biir diwaanu Tambacounda ba bañ koy daan jël bu amul benn wexante bu Tamba doon tey jokkoo fii ci Tambacounda rajo Sud FM Boubacar Tamba artisan yi itam ñoom ñu ngi wéy di aar seen bopp seen ministre bi leen boot sax daal dina leen may ay kit sanitaire maanaam lu ñu fàggandikoo ci jàngoro ji loolu kat moom moo tax président chambre des métiers euh, ba daal di woote ne daal na askan wi xamkat ne coronavirus ba tey mi ngi fi Abdoulaye Sarr di président chambre des métiers bu Tambacounda ci micro Boubacar Tamba. waaw mooy lu ñu rafetlu lool ndax euh, ministre Dame Diop depuis euh, pandémie bi tàmbali. Euh, du bii moo ci njëkk euh, moom ci boppam def na ay pexe boppam euh, yónnee ñu dans un premier temps benn lot symbolique ci de métier Sénégal yëpp bi loolu passé tamit jël na aussi ci confection masques yi région bu nekk mu fexe ba nga am au moins trente mille masques yoo xam ne couturier yi ko ñaw incha allah li ñu si enveloppe bi ñu leen war a fay douze millions de francs la. bi loolu passé tamit projet bi nga xam ne moo nekk ci biir ministère bi mu ñu koy wax le programme PEJA. bi nga xam ne employabilité des jeunes la pour l'apprentissage non formel boobu tamit euh, vraiment fexe na ba nga xam ne aussi artisans yi bokk ci projet boobu euh, dimbale na jàppale nañu ñu ngi leen di jàppale jox leen ay kit sanitaire ak aussi yaakaar beneen dimbal aussi boo xam dina ci tegu loolu nag euh, tamit ay gestes yu rafet la yoo xam ne dañ ko ci sant bu baax di ko ci di ko ci gërëm ndax projet boobu apprenti artisans yi nga xam ne am na chance bokk ci yaatuwul nag bien sûr parce que huit corps de métier la concerné te itam ci capital régional bi yem ah loolu mais ñi ci seen wërsëg nekk tamit euh, dañ koy rafetlu ndax benn artisan bu amee rek jàpp nañ ne yenn artisan yëpp am nañ te xam nañu aussi bis bu nekk mu ngi ci ay pexe pour jàppale artisan yi. Euh, may lancer un appel ak sama mbokk artisan seen waa kër ñu gën a gën a góorgóorlu gën a jël affaire bi au sérieux ndax ni ñu gis mbir mi di demee euh, xëy na nit dafa mel ne bàyyituñ ci xel mais dafa mel mais nekk affaire mu ngi di gën di garaaw te yow booy doxal sa tànk rek yow sa bopp kenn ku nekk da ngay constater ne. mbir mi dafa mel ne feebar bi amatul amul ci réew mi terrain football yi borom ba léegi fi ñu séddale dund bi léegi nit ñi niñ mel doy na waar donc daal ak même jàkke yi dañuy dem mais vraiment euh, ñuy respecté gestes barrières yi bariwul na ñu gën a bu baax ci loolu ñu ci lancé appel daal ñi nga xam ne bu ñu dégloo suñu carte daal ñu bàyyi xel ñu xam ne li ñuy wax pour su njëriñ la ñoon ak suñu njaboot ñu jeexalee ak génn génnuk àdduna Abdoulaye Seye Mokho di woon ancien président fédération sénégalaise bu basket faatu na ci juróom-ñeent fukkeelu atam euh, mu di nag euh, lu metti ci wàllu tàggat yaram fii ci Sénégal ci kàdduk Seydina Omar Diagne di secrétaire général du comité olympique sénégalais ñu déglu ko ay séddem ci micro Adji Fatou Bari. mooy président bi nga xam ne mën naa wax ni moo gën a yàgg ci basket. parce que ñaar fukki at dirige na ko fédération basket dem na fii ci Afrique ba diriger li nga xam moom la ñuy wax FIBA Afrique mën nañ ko woote mën nañ ko woowee confédération waaye moom mooy nit africain bu njëkk nekk président fédération mondiale bu basket. abla Seye nag boo koy boo koy jël xëy na ñun ay xale lañu waaye njàngat biñ ci am parce que man dama naan toog di waxtaan ak moom ci lu bëri nekkoon na nit koo xam ne euh, nit ku tabe nit ku baax. nit kuy jëf lu baax nit ku nekk nag nit ku xam dafa bëri jàmm kooku ñëpp mën nañ ko ko seddal du xeex kat jàmm rek lay dox euh, nekkoon na koo xam ni dafa joxe lépp sport tey suuflam bu mujj bi dernier suufal li ma ko mën a wooyee mën naa wax ni sport la ko jox ndax at yi mu am malgré at mu am ba léegi bu mu jógee fédération basket toogul këram fédération yi fi jaar yépp après moom danaa ñëw di leen jàppale di nekk ak ñoom toutes les semaines bu réunion bureau exécutif euh, fédération bi amee mi ngi toog ci table bi bu réunion comité directeur amee mi ngi toog ci table bi bu réunion bu assemblée générale fédération bi amee mi ngi toog ci table bi bu gisee loo xam dafay yàq moom day dox da ciy dox di ci dox da ciy rey boppam pour que loolu ñu mën ko arrêté kon Ablaye Seye def na loo xam ni ñun ñi nga xam ne la fi bàyyi ñun waruñu li ñuy wax héritage am ndonoom damay ñaan yàlla ñu conserver ko ñi nga xam ñoo nekk ci basket bi particulièrement ak en général ñi nekk ci sport lim fi bàyyi nañ ci njàngat. Euh, li ñuy wax Dakar Université Club moom membre fondateur bi moom bokk ñoom ñoo ko créé donc moom dafa dafa am passage boo xam ne pour dirigeant am ko lu métti lay nekk ndax moom dafa nekkoon dafa pratiquer dafa pratiquer d'abord sport di ci pratiquer ba pratiquer ba dem ba arrêter sport ñëw nekk l'un des plus grands dirigeants de sport du Sénégal parce que nekk fédération mondiale. Euh, bu bu bu bu bu euh, en fait bu sport loolu ñu ko ci moom mooy sénégalais bi ko jëkk a nekk moom mooy africain bi jëkk a nekk président fédération mondiale bu basket beneen bi appel la boo xam dama koy lancer autorité président Macky Sall def na lu rafet mooy stade bi nga xam ne moom la ñuy wax arena moom moo ko tabax pour jeunesse sénégalaise pour jeunesse africaine ñëpp kontaan dëkk yëpp duñu ci naw àddina foo mën ci dem ñu ngi wax arena bi damay ñaan président la république dañ ko war a jël inauguré stade bi demaat inauguré ko jox ko tudd ko ñun ñaax ak yàlla yàlla mi mën yàlla parce que Ablaye Seye nit ko amoon diine la. Ndeye Khady Diop Sud li gënoon fës ci xibaar yi bokk na ci ni ñuy sax-saxee suuf si rawatina li feeteek géej gi di littoral euh, ni ci nit ñu war a jotee nag euh, ci géej googule mu jëm ci seen yitte dinañu ko gën a bàyyi xel euh, loolu la kat la kii di Seydou Gueye di ministre conseiller en communication bu présidence wax ci benn plan d'aménagement boo xamante ni ñu ngi koy waajal li ñu ci bëgg moom mooy fexe Euh, ba euh, tabax yi ñu fay euh, def yépp ñu mën ko delloowaat nguur gi kàddu yooyu la dëkk yëkkati ci seen émission objection jàngoro coronavirus tey jii amoon nañ lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari cas yu bees ñetti nit dolleeku ci daal di faatu ñaar fukk ak benn yi kenn xamul fu ñu ko jëlee ñu di ay cas communautaire déglu ngeen ci docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention wax nañu itam ci nit ñi ni ñu bàyyee seen loxo ci fàggandiku bi ca Tambacounda moom kuréel bi ñu tuddee mouvement Afulaar na nañu def benn caravane dugg ci gox yi mu di ay ndaw ngir waxtaan ak nit ñi ñu mën a delloo si seen xel ci jàngoro ji génn àdduna itam Abdoulaye Seye Moro di ancien président fédération sénégalaise bu basket daal di faatu ci juróom-ñeent fukkeelu atam déglu nañ ci seedey Seydina Oumar Ndiaye di secrétaire général comité olympique sénégalais li ñu ñaan kon yàlla xare ko aljana te groupe Sud Communication di jàll euh, mbokkam ak waa basket bi yëpp Ndeye Khady Diop nekkoon ci micro bi Alassane Wade ci machine bi bu 18h Aïssatou Gueye ba dina fi teew ci xibaar yi ci nasaraan ñu bàyyi leen ak euh, seen émission rétrosport ci wàllu rediffusion bi.